et gagne 2019 Sénégal Algérie donc final euh, coach euh, final euh, donc parce que match ba mu des ñaar euh, pour maanaam jël ku ndam mm, ñaari ku ci mooy jël ndam ni donc cest à que mooy que ñoom ñaar ñëpp mérité nañ ko donc euh, di wax ni maintenant euh, ku ne xam nga ne final Euh, bra muy neex nga joué ko gagné ko. parce que sinon la nga defoon yëpp am du amul benn njëriñ. ay joyé mu jéeg wala ay rétan loolu la final maintenant ci ci li nga xamné moy li nga xamné moy ñun moy ñu wa Sénégal moy ñu ñor moy mooy safe bi mooy suñu ñaareelu final bi. donc ko defoon ci 2002 euh, mu mu mu mu mujjee mu ñu gagné ci penalty c'est un entraîneur vie. donc je pense que sous mon que vous

dafa am koo xam ne dañ koy dañ ko seq ak moom muy Algérie. Algérie nag mooy équipe nga xam ni. Euh, xam nga ñun maanaam bu fekkee dañuy analyser da ngay def analyse boo xam ni du am par parlo quoi ah. Euh, Algérie mooy équipe bi nga xam ne moo gën baax ci tournoi mais mën na ni Algérie mooy équipe nga xam ni kenn gañewu ko mais kenn gañewu la ça veut pas dire que kenn du la gañe L'Algérie l'Algérie c'est l'équipe invaincue mais n'est pas boo ko desee ñun dañ ko am pour gagner Et léegi Algérie kan mooy Algérie Algérie mooy équipe boo xam na équipe qui xam mu mu la ngi en 4-4-2 4-4-2 euh, bu koy joué euh, da koy joué maanaam ci euh, ci ñaari ligne ak ñaar ak ñetti ligne ñaari ligne attaque ñeenti milieu terrain ak ñeenti défenseurs

toujours bi ñu koy teg dañ koy teg fa ak ballon bi nekk te bu ñu ko tegee dañuy dañuy maanaam euh, seen joueurs dañuy jël position baax ci terrain bi pour que maintenant bu adversaire bi yore ballon bi rek ñu dem ñu dem song ko ñu accéléré song ko donc Algérie noonu lañu taxawee. ba si seen taxawaay seen diggante diggante ñaari joueurs yi dañ koy defar diggante jour à jour dañ koy mooy intervalle diggante. ligne dañ moi ligne milieu terrain ak euh, milieu ak défense dañ koy bi profondeur donc moi Algérie équipe pour euh, même même même même pour occasion de but sax day day day euh, parce que am nañu jouer parce que dañ yéeg nànk-nànk ci ci tournoi aussi Euh, mooy valeur Sadio Mané la et que moom coup coup franc yi euh, da koy dugal donc nañu moytu aussi coup franc xam ne si daanaka trente dernier mètre wóorul parce que jour bu mel noonu boo ko amee buy def yooyu kooku wóorul mais euh, ci loolu ñu am yëpp ñun am nañu at yoo xam ne mën nañu gagné Algérie

te te bu ñu perte boobu dañuy dajaloo. bu ñu leen may ñu dajaloo balaa ñuy dajaloo ñu ba ñoom balaa ñuy di di dajaloo ñu aussi na suñu fool kaa duñ ci kanam. c'est-à-dire que nañu moytu lépp loo xam ni ay passe latéral la. parce que équipe boo xam day positionné pour assurer booy def passe latéral da nga koy dimbali pour loolu loolu loolu loolu am donc nañ moytu loolu. moi je pense que suñu at aussi. Euh, mi ngi ci demee mu ngi ci côté yi. cest à maanaam boo amee jour mel ne Sadio maana am du mel ne Balde am ku mel ne Sadio am ku mel ne Sadio Mané Balde Ismaïla Sarr boo jaaree ci côté yi je pense que mënuñu dimbali parce que ñoom dañu dañuy dañuy dajaloo dañuy dajaloo. yaatal leen bu ñu leen yaatalee. bu ñu leen bu ñu leen yaatalee mën nañ am ay ay gën a yeew seen mën nañ am mën nañ mën nañ fa ay bunt donc yooyu maanaam yëpp xeetu xeetu et puis bal bal arrêté aussi bal arrêté aussi ñun baax nañ ci gis nañ ni sëy dugal contre ti gis nañ ni sëy dugal contre Tunisie ça sayfe aussi am na ci xarañ na ci donc marché boo xam ne dana marché marché bu équilibré nekk boo xam ni rapport de force bi euh, maanaam ku gën a dëgër mentalement moo koy moo koy mooy mooy mooy match bi mais aussi am na wàllu technique wàllu tactique Algérie euh, bu Algérie du Tunisie parce que Tunisie amatul vivacité ci football mais Algérie am équipe naari toujours ñoom dañuy am équipe dañ ñëw jéem provoquer ñu merlo ñu moy moy li nga gis nii ay xeex yi ñi xex ak ay attaque jabaru mbay ñaan pare di xex ak nit ñi euh, di ay parce que Algérie mom moom Algérie xam mom moom Algérie ko xamni ne Algérie ragul dé quoi parce que ñom c'est c'est comme ça donc euh, yoy xex yëpp dañ ko andi mais atu man ñun suñu atu moy liñ def ba légui euh, ñëw concentré wu amul ak beaucoup de discipline mais pas, pas, pas, pas, pas, pas euh, di euh, discipliné wu du donc voilà donc voilà maintenant euh, t'as man Sénégal Sénégal ici, millions sa Kalidou du calibre